ak yeneen sponsor yi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal waaye papa dama lay bàyyi euh, nga nga introduire suñu kilifa gi bu ko defee ñu door waxtaan bi ak moom muy papa El Hadj Mansour dëgg la kooku nag <laughs> Amidun mooy kenn ci nun moom Cheikh Amadou Mansour si Cheikh al Xawmi lañ ko tudde moo ko ñaanaloon as Mansour ñu ngi lay nuyu Abdoulaye Mbaye Pekh sama ah. jarbaat sama xarit maa ngi lay fay. Ah, Mbaye yàlla Mbaye yàlla nga fi yàgg te wér. loo fi gën a yàgg may la gudd fan yow itam. amin may wér. dëgg la. li nga bëgg yaa xam yàlla yàlla defal ci barke sa sëriñ ba sang ba ilimaanu ilimaan ya ki jiite woon alxaaji Abdul Aziz mu xutbaal ko di Cheikh Abdou Khadre Mbacké. dëgg la. Abdoulaye maa ngi laa nuyu. <laughs> am mbégte toog ak Mara Fall. Mm. ak waa ñi xam ni seen seen maam ak sama baay benn lanu noo toog fii tey di waxtaane ku xam ni lislaam jaru lislaam jamu ko mbokk jamu ko tarixa jamu ko ki li bëgg waxtaane tey jàkka joo dem ci biir Sénégal ak fu du Sénégal mhm. na see àq bil àq di jib Cheikh Sina Alhaji Malick la boo gisee jumaa ja ca Paris. Mm. ke kërëd mooy alxaaji Abdou Kan moo jur soxna Assou mm-hmm. moo jur Cheikh Seydi Ahmed Tidiane El Maktoum ak Seydi Abdou Aziz Al Amine boo demee Gabon alaaji ma joxu jong nasri àq bil àq di Cheikh Seydi El Hadji Malick dëgg la boo demee boo demee Abidjan kër Alaaji Madu Siise muqaddam ba na se aq bi laq di jib Cheikh Seydi El Hadji Malick la ki nu wax jëkk wax Alaaji ci réew mi dem Màkka ziyaara ji sang bu tedd ba rasulullahi ñu koy wax àllaaji mi ngi jëkk ci Cheikh Sidi Alhaji bala may wax dara nag maa ngi nuyu ak di ziyaar sama sëriñ Sidi Aboubacar ibnu Alhaji Mansour di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan lool yàlla may ko wér lool tey ci ngoon jot naa ko muy wax la mu daan wax rek yaay magu kër gi yaay sama trondoo baay yaay doom Sidi Boubacar mu jëkk toog ci xilaafa gi maa ngi ko nuyu ak di ko ziar sama xarit bu ñu wax Makhtar Cissé ancien ministre moo ma ko passé mu nekk sa baax rek maa ngi ko nuyu ak di ko ziar ak di ko ñaanal yàlla mu may ko gudd fon lool ak wér ba nu ànd nag moom inauguré gi ju ina jumaa ji xam ne maamam moo ko sampaloon sunu borom tabaraka wa taala Sidi Boubacar xalifa bu tedd ba 22 ba 57 muy jiite jumaa ja di jiite korite ga di jiite tabaski ja ànd ak rakkam ja xaritam ba soppem ba cheikhul xaw mi alaaji Mansour ak alaaji Abdou Aziz Ablaye Mbaye Pekh nijaay maa ngi lay dégg Ablaye Mbaye Pekh waaw nijaay maa ngi nuyu bu baax nag sang ba ca tuuba dëgg la ki ki doonu sëñ Basiru dëgg la Abdoulaye Mbaye Pekh yaa ngi may dégg maa ngi lay dégg nijaay yow rekk laay déglu ki doonu sëñ Basiru dëgg la dëgg la doonu Xaadim Rasul dëgg la fab tànkam teg ko foo ko bàyyam ya tegoon wallaay mbay bi mu laata dégg xalifa mm-hmm. sang bu sang ba mm-hmm. sëriñ Saaliw mm-hmm. ma ne ko xaadim rasul mm-hmm. lépp lu xew ci diine ji ak ci mm-hmm. lislaam bi mu ne wal sëñ Mutaha dëgg la maa ngi ko di ko ziar wallaay wallaay barki dem rek laa jot ndawam muy Abdoulaye Baye Peex wallaay mu jóge ca dëkk mu jëkk ca dëkk bu tedd ba maam juróom jaari bu suuf dëgg la bërki bërki dem rek laa jot naa wam muy Ablaye Mbaye peex mu jóge cam mu jóge ca màggal ga wallaay wallaay mbay di di ñaan ci réew mi nag jàmm bala nuy commencé émission bi dëgg la moom moom la nit ñi dégloo ñaan la El Hadj Abdou Aziz daan wax yal na yàlla tàppe xol yi xalifa bu tedd ba sunu baay alxaaji abdul aziz boo amee sa ëmm mu nekk ci gaal bul ñaan ëmb ba mucc bu gaal ga muccee rek ëmb ba mucc na dëgg la ci ci réew mi nag réewu jàmm la waaw dëgg la dëgg la dëgg la. nag duru ko mooñaale. Cheikh Sidi El Hadj Malick. Hmm. sunu maam ju baax ja. dëgg la. ak sunu maam Xaadim Rasul. Hmm. ak sunu maam Hadj Abdoulaye Niass. dëgg ak sunu maam Cheikh mi xam ni Seydina Isa. walaay roo walaay. ak kilifa diine yëpp seen allahuma yàlla nangu na ko. dëgg la dëgg mbay. boo xamee réew mi li ci doon Afrique occidentale française ay coup d'état di am. Ah. ca nun nu ni teg xam ngeen loolu allahuma mag ña la de. ñoo ñoo ko def. kon nag kon nag yaakaar naa bu ca kanamee. waaw. waa nijaay ba sama jarbaat yi yëngu. waa dama la bëggoon a laaj ñi nga dellal ñooy ñan. ba ñii. Ah. dama lay wax ñooy ñan. وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء فمنون علينا بخصن خطام وبصاحبي خاتم تامقات من الانبياء فمن علينا ربحون ختام موضوعنا وبصاحبي خاتم خاتم الانبياء فمنون علينا خوزنا خطابي وبصائبي ختام قاتمي الانبياء فمنون علينا ربي حسن ختام موضوعنا ابدا بروق تحت جوع ظلامي آه. أمواج ميات عمرو بوع شمام بصاحبي خاتم تميل الأنبياء فمنون علينا ربي حسن ختامي ñii nooy مصالح kër غور Leye واي Uh-huh. kër nag boo fa demee. Uh-huh. nuyul borom kër ga nag. dëgg la. may nuyu bugaan. dëgg la dëgg la mbay. ay ndeyam ak maamam dama leen xam ca ndar. wallaay dëgg la moo am jom. muy nit ku xam ni ay waajur waajuram gërëm nañu ko. def lu rëy. waxuma rek sëriñ Mbàkke soxna loo mi sëriñam eh. ci sëriñ Mbàkke soxna loo moo doon taawu ki xam ni histoire u du ko fàtte mukk mu sëriñ Cheikh Fatma sur bay alxaaji Abdou Aziz ne man abdou xaw xew yowma xayaamati waaye Sénégal gii nu nekk gisuma ku gën sëriñ Cheikh Fatma te bu demee ëllëg dana am ngërëmal maamam xaadim rasul ak ngërëmal baayam Seydou Moustapha Mbacke. wallahi wallah la ilaha illallah. bugaan nag sëñ Mbacke Soxna Lo mooy sëriñam. waaye nag par parloowul ci diine. déedéet. par lu tax loolu. am doom. kër ndey ba kër baayam di nekk. ak ci xaritam. wallahi wallah mu ni kii Seydi Abdou Aziz Al Amin laa koy tuddee. lu lu rëy la. kon kii par parloowul. déedéet déedéet déedéet. ci diine ji ak ci lislaam bi. amee studio. gouvernement bi yëpp taxaw. ak les hommes d'affaires. Avec les marabouts mu invité Papa Malik. dëgg la. yaa na yàlla yokk leeram ak le gardien de la constitution l'homme des grands projets de l'État. dëgg le président de l'espoir. dëgg Nous ni ko damay tukki la premier ministre. dëgg yónnee ko Abdoulaye Jonn dëgg la. ñëpp wax ku mu koy tudde mhm. mu geesu. ca tableau ba. Mhm. ni premier ministre kii El Hadj Mansour Mbaye laa ko tuddee studio bii. dëgg la dëgg la. bugaan bëggul sama tur bugaan bëggul sama tur fay. déedéet déedéet dëgg la dëgg la. ma bàyyi leen ak waaw. Ablaye Ablaye fu ma toll. waaw. maa ngi lay maa ngi lay ñaanal yàlla. walaay mbay. fu ma toll. walaay mbay. maa ngi lay ñaanal wér. amin amin mbay amin wax naa la ko janoo ak yow. Mhm. ni la mag laa. dëgg la. kon ñi ma mën a ndax bareetul. dëgg la. waaye sa mbëggeel ak sa mbaax. ci man dëgg la ci nu bokk benn maam dëgg la may Senghor Laati Jóob dëgg la Ceddu Laati Jóob dëgg la ki topp ci maada sa day wala muy magam ngoone taal sama day la du ko tuddee loolu am kon Abdoulaye Mbaye peex place am ca Touba yàlla ak barke sunu maam Cheikh Seydi Alhaaji Malick la waaye def ko ci lu rëy ku ma nuyu ca Touba nga léegi ma ne ma saba xarit baa ngi Mansour Bay wallaahi teraanga ju am ca Touba ñu ne sama xarit baa ngi Mansour Bay bésu Amadou Mbaye Maodo mu mag bi xam ni El Hadj Abdou moo ci joxe woon ndigal. Mhm. te Papa Racine di ko présider. Mhm. maire de doomu amala. Mhm. parrain ka xam ne mooy parrain ba di sama mbokk di sama xarit di sotti ma Samba Diop. soxna Ndéla Wade. di aji Ndéla Wade. waaye nag invité d'honneur ba. mooy doomu sang bu tedd ba. ca daara ja nga wax barki démb ni Serigne Bass mi xam ni plaisir la ci diine jeeg l'islam bi. ni ko fii nag miin nga ko lool ndax mooy sa kër Baye Souhaïbou. soxna Baye Souhaïbou mooy invité d'honneur ba. ca loolu yàgg na lool. wallaay wallaay mbay wallaay mbay. Ablaye ma bàyyi Ablaye ma bàyyi la ba ca kanam nag waaye boo ca kanamee boo ma laalee ba sama xale yi yëngu. ah. ma Mara Fall yëngu. ah. Mara Fall mooy gaaya. Mm-hmm. Mara Mara Fall mooy waalo. Mm. Mara Mara Fall mooy soto Abdou Bori. Abdou Bori Fawad. ay bu ca kanamee. ay ay góor gi bu ca kanamee. ma bàyyi la nag Ablaye. ah ay nijaay bu ca kanamee. di nuyu Sénégal yëpp nag. wallaay wallaah. di ñaan réew mi yàlla def ci yàlla def jàmm. amin amin amin yal na yàlla tàppi xol yëpp. bu ca kanamee. mën a waxtaan ci sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick. danaa la indil tuuti histoire du Sénégal pour xel yi dellu si. dëgg waaw mat na ko nag. bàyyi naa la ak micro bi Aj Abdullah. tubaarkalla eh, Amidoune xadi général moom daana wax yaram daw mhm. waaye tey la yaram daw. dëgg ko wax. Mhm. ku xool këram na mu mel. Mm. xool studio bi ni mu mel. Mhm. yaram daw na. dëgg sëñ Talla Mbacke moom sëñ Abdou yàllaay buur ndax ma ne waa kër maam Mamar Diarra tey kenn du nelaw ndax si jaaji Malick mooy suñu mbokk ndeysaan dëgg la si jaaji Malick Ousmane dëgg la Ousmane Mati Mbacke dëgg la Alaaji Abdou Safeetu Ngañ Nang Xari Mbacke dëgg la sëñ Talla Mbacke mu ni ma kenn du nelaw waa kër sëñ Abdou yàllaay mu ni ma si jaaji Malick mooy suñu mbokk xoolal lii dëgg la Amidou lii mooy Sénégal dëgg la léegi nag dama leen di delloowaat kaddu gi dëgg la ngeen ñëw ci jëmm ji nu toog. war a waxtaan ak si jaay Malick. ba ca kanam ñu dellu ca kër El Hadj Mansour. dëgg la nuyu nag njabootu El Hadj Alé Ndiaye. Abdou Assis Ndiaye ak Baye. ñu ngi nuy dégg El Hadj Alé Ndiaye. kenn mënut a wax kër si jaay Malick. ak kër sëñ Babacar te tuddoo El Hadj Alé xam naa ne ñoom ñu ngi nuy déglu. Mhm. te ragal naa balaa émission bee daanu da nga dégg seen kàddu. kon dama lay dama lay delloowaat. jërëjëf. Euh, jërëjëf Baye Ablaye mhm. euh, soxna Khady euh, sëñ ñi gërëm baax suñu bàyyi Mansour mbay xam naa mhm. danañ ñëw dégg ci sëñ Cheikh Sarr mhm. ndax tey moo war a ubbi maye yi waak Jeanne xam maa ngi koy wax léegi lii la ñu bari di bañ ci réew mi Baye Ablaye murid la sëñ Cheikh Sarr murid la yaa sayda génn wàll murid Njaasaan Tiwaawan Cheikh Mbacké murid la waaye keetoo catholique la Jeanne mhm. ñu ne ñun ñi ñëpp dañoo bokk waxtaan Cheikh Seydi Hadji Malick tey. lii la lii la lii la am ñu koy bañ. te lii mooy jàmmi réew mi. dëgg la fii la réew mi toll. Mhm. kee toog ne catholique la. dëgg waaye mooy servir ataaya ji. dëgg la mënunoo fexe ba mag ñi duñ am wàcc waaye ñu am ci réew mi. dëgg parce que fi ne bennoo moo am ndax danoo bokk benn lutte. la ñuy lutte. Mhm. mooy ñii nga xam ne danoo bëgg a guerre tasawuf amuñu fi place. amuñu fi espace ndax euh, maa ngi jot léegi message bu monsieur le maire Bambilor njañ Diop man nañ commencé ci xilaas moom it ma nga daas fanaana lool xam naa ne kéemaan la euh, bi ci dàqati mooy sunu directeur bi toog muy sëñ Pape Diène tey yaakaar naa bañ dalee tàmbali bi ci kaw la daan yem tey nag daa dugg ci biir Sofia Diatta it nee na moom euh, maa ngi ca kanamu écran ba moom ñoom soxna Ali Maak nee na ay saak ñi nga xam ne tey Cheikh Sidaaj Malick la ñu am waaye sëñ Cheikh soo gisee ñu dugg ci loolu dañoo bëgg bu sëñ Habib nuyoo ba nga joxe say addiya mm-hmm. genre mais présenté yee ko wër mm-hmm. buñ tàmbalee kenn dutul dagg Eh. xanaa ñiy way yëg ko rek eh. ndax li ci ëpp solo mooy uh-huh. ñu xam ne mag ñi moom bennoo nañ ndax fii ma toog njabootu Cheikh Mamadou Mountakha ñi ngi seetaan soxna Bari sëñ Lamp uh-huh. ñoom ñoo njëkk bég wala sëñ Mouhamed Mbacke uh-huh. message nii ne ma ñun ñoo ngi jàkkal télé ndax sunu maam la ñuy waxtaane loolu mooy réew mi kenn mënu ko fee dëgg kon soxna Xalima bàyyi la nga euh,